bay déedéet dañ ko fee dee indi waaw dañ ko fee indee waaye garab bu ñoo sàkk di ko génnee asaka mhm. kon ñun suñ garab bi asaka waru ci ñun ay koko lañ xam mhm. ak ay soraas mhm. yooyu asaka waru ci ak i banaana waaye xamuñ tàndarma tàndarma nag asaka def ci war te mën nañ koo dundee te mën nañ koo denc lu yàgg yàgg yàgg naka ne ko nu sabib moom dafaa génnee diw ñun resin ah, ñun ah, asaka war nañu waaye ñun amuñ ko kon yi ñoo wax ñun muy pepp pepp daal moom asaka war na ci moo xam hmm. dugub la hmm. moo xam mboq mboq la wala hmm. maalo la bu nag asakaam muy ku ci xam juróom ñetti barigo juróom ñetti téeméeri kilo muy muy nisaabam waaw loolu daal ñëpp muy li gën a siw am na ñuy wax juróom-ñaari barigo waaye juróom-ñetti barigo daal ku ko am asaka war na ci ni nga ko génnee nag muy fukk bu ne benn boo xasee bu xawee yow sa dugub ji mhm. wala sa mbokk mi wala sa ceeb bi moom xóoru ne dana mal joom ñetti ko mhm. léegi nak ngay nat bo neexee ngay tak tak bu ne nga génnee ben boo am fukki tak mhm. génnee ben lañ ko def nak ñam ñu ko def ci dugub lolu qiyas wu lool ndax tak yi du hem yow em kañ waaw mu tax li gën mu doon buñ ko mënon na bojj nat ko jël kay di nat di nat par par pot wala par saako. Mm-hmm. Ah, wala di peese par kilo boobu mu doon gën a baax waaye daal fukk bu ne nga génnee benn. Mm-hmm. fukk bu ne nga génnee benn ndegam asamaan si mu ko tawal. tawal waaye su fekkee ne tool la boo xam ne nag yow yaa ko. rooseel sa bopp wala yaa xam boo xool wala di pompe dafay bilu ndox. Mm-hmm. bu boobaa nag fukk bu ne génn wala nga génne. kon fukki ba dañu koy xaaj ñaar ci digg nga génnee benn ba. waaye mais fukki saako. nga génnee half saako wa su fekkee ne taw la moom fukki saako yo xam nga génnee benn waaw fukki saako yo xam nga génnee ben mm. wa ndigam nisab dana man nisab muy dana am mat juróom ñetti bërigo waaye su fekkee ne li nga bay do xam ñetti juróom ñetti go bu boba nak asaka waru ci mm. asakaay mbay nag mom sa e yu ñoré rek da nga wara a asaka yëf yaangi wax né or ak xaalis léegi lék tam comme takay yi jigéen ñi dé takay or yeeg xaalis gi hej na nga am ci ay boyet boyet dama dee dégg ne loolu tam asaka daf dee war déedéet déedéet takkaay moom asaka waru ci hmm. li nga xam di ko takkaayoo hmm. asaka waru bi yafal la hmm. du ko cegaale na yi nga xam ne danga ko mu wulli bàyyi ko ci kër gi pour bàyyee ko yooyu diñ mi nga yar ci di ko yafal boobu itam asaka waru ci ak aw xaas aw xaas muy lu hëpp dañ la wax ne ñeent fukki xar ci la asaka war hmm. boo xam ne fukk fukki ya aw xaas la kenn du génn asaka am hmm. ba juróom ñaar fukk ba juróom ñett fukk fukk bala ngaa xamee téeméer yóbbu hmm. benn gàtt mu caa war Mm. farweer nag ci la si ko war mm. boo xam ne fanweer juróom mm. juróom ba aw xaas lañ ko tuddee muy loo xam ne romb na farata ji taaga kuur ci bële loo ca tegu rek loolu duñ ko génne asaka waaw loolu ah, yaakaar naa loolu leer na mm-hmm. waaw suratul tawba yàlla ngee tudda juróom ñetti catégorie yoo xam ne ñoom lañ ko war a jox mm-hmm. fi moo waxee ne inama sadaqaati lil fuqarail wal masakina wal amilina am alayha wa mu alafaatu kulubuhim wa fil rikaab mhm. mu continuer continuer ba juróom-ñettay waa léegi loolu laa bëgg nga gën ñoo farafancal juróom-ñetti nit ñi nga xam ne mhm. ñooñu lañ war a jox azaka mhm. asaka ay satu yàlla moo ko séddaleel boppam wax ne innama sadaqaatu lil fuqarai ni mu ko waxee wax ju leer la ci ñu jàng bayaan ah, muy wax joo xam ne ju ñu takk la lil foqaraa yi da nga fekk benn laam <laughs> laam googu lañ ko tuddee laamul milk waaw uh-huh. ah, maanaam ayal wane asaka yi uh-huh. foqaraa yi ñoo ko moom oh, uh-huh. ku ko le ku lekk lekkoo sa alal alal jàmm nga lekk léegi-léegi daan am na xam ko leeral léegi la ñuy jëf njuumte ci asaka léegi la ay solo nga gis ku nag waaw ah, jaay ko moom sañ-sañ dem jaay alali jàmbur jël xaalis ma léegi ne ah am ñaar fukk jox ñaar téeméer jox ci téeméer ne asaka laay séddale génnewul eh, eh. asaka déedéet waaw ah, ndax alali jàmbur yàlla mu ne asaka eh, miskin yee ko moom yow kon boo boo jaayee ala boo jaayee asaka bi rek yaa ngi jaay xale li jàmbur mu ne man xam xaw ma sañ say ñëw jël sax nag jaay dafa bari sax nit ñi ne benn nag réy na ci nit waaye benn nag réyul ci nit jëlal benn naw jox ko miskin waaye xam na ñoo xam sax ñoom la ñoo def mu gën a garaaw ñoom ñu ko jëndal seen bopp mhm. ñoom ñu jël asaka bi mhm. paraysal seen bopp jëndal ko seen bopp a mhm. waa dëkk bi yëpp yi nit nga booleen benn nag loolu itam amul njëriñ loolu itam jubutu ñu jox ko miskin bu sonna mu jëriñoo ko hmm. waaw ci la nag loolu la nga booy leen ko ñëpp bokk ci rafetul am na ñoo euh, euh, yoo xam ne ko jox asaka hmm, boo ne waa hmm. dëkk bi xale yi ci lañ bokk ci ki sax ci dëkk bi la bokk ngeen yéen a ko moom ko yow génne ko asaka ba léegi asaka da koy génnee joxe ko génneel benn nag seen benn miskin nga jox ko ko uh-huh. waaw lu ñu mën da xaajale kenn du ko boole ay nit uh-huh. boo amee ñaar nag nga génnee ko jox ko nit uh-huh. waaye dem jël xasaka dem jaay ko jaay nga alali jàmbur jël waaw jël xaalis wala nga dem jënd ko nag mu gën a garaaw caaj sa bopp jël sa xaalis yow kon mu ngi mel ni yaa ngi génne asaka jëlaat yàlla de moom kenn mënu koo la nga xam ne yow boo ko génneewoon sax asaka jox ko nit kooku bu ko jaay sax waroo koo jënd inamal ahmalu bi niyaa waaw boo génne woon asaka jox ko miskin mu ne ko mm-hmm. jaay yow waroo ko jënd yonent bi nee na mm-hmm. mu ngi mel ni ku xaj bu wuccu ko lekkaat ci ñaaw kon nag yow waroo ko keneen di jaay boo ko maanaam yow nga génne ko fara jaay bi ko yow a ko yow bàyyi ko ci gétt gi mm-hmm. yow yaa ngi fowantoo islam rek def lu la neex waaye yow génnee woo yàlla boo ko génnee ko a yee moo tax yàlla wallahu alimun bisa til sudur yàlla xam na li si xol yi yëpp innama sadaqatu lil fuqara eh, yàlla mu ne asaka yi nag dëgg dëgg dëgg ñi ñàkk ñoo ko moom mm-hmm. faqiiram lu gën a bëri la mm-hmm. mooy ki nga xam ne mu ngi góorgóorlu di liggéey dara jotu ko mm-hmm. waaye li mu xam doyut ko ah, balaa weer wee dee fa tabaarakallah mu ngi leb sax di fees dal waaw jeexal na tàkk mhm. ah, di leb dund di leb kii nga xam ne fu mu kóotu mu ngi katti katti mhm. denc lu bëri man da am alal ba den ba déen mhm. kooku muy faqir ñooñu ñu ko moom waaw boo gisee yàlla waxut ni leen dem leen yelwaani alxuraan doo ci jàng mukk mukk dem leen yelwaani waaw ah, ñu ñàkk yi yàlla waxu leen ne dem leen yelwaani lu tax daf leen jox alal ñoo moom asaka yi kon képp ko xam ne xamula bitig boo romb miskin yi xam nañ ci wàll uh-huh. tool boo romb miskin yi xam nañ ci wàll uh-huh. gétti goo romb miskin yi xam nañ ci wàll uh-huh. waaye joxuñu leen ko nag muy problème bi joxuñu leen ko ko naa ñu ko génnaat ko jël miskin jox ko 50 fifty dalasi ne ko 50 fifty ci lu man mën hmm. asaka da nga gëné lim bu am doole hmm. jox ko miskin hmm. waaw wala wala fakhir nga xana ne ci mëna am lu ama am solo wala mu commencé ci sax liggéey bay gëné asaka mom way nit ñi dal dañu jéem naxanté ak yalla di xayma légui da nga gëné tuuti tuuti tuuti lolu du asaka kon nak yalla mu ni juroom ñet yi la wax ne ñoo mom asaka lil fuqara fakhir muy ko xamné am na waaye lu am doyul muy mm. li gën a bëri nag ak miskin muy koo xam ne mën da liggéey mm. ku mën da liggéey itam eyoon na asaka ko donte am na sax waaye miskin la rek mm. kooku eyoon jox asaka koo xam ne mën da liggéey seli maxala mën da liggéey wala dafa la fañ moom mën da liggéey wérut dafa wàññi